marché Caaroy salte na xuus bi métti na bu tawee kenn am foo jaar jigéen ñi fi jaay ñëpp sonn nañ suñuy ndugg su lu nekk lañuy sol ndax bëgg a jàll nañu dimbali defaral ñu marché bi liñ fi fayeeku ci juuti nañu dimbali defaral ñu marché bi ndax ñu fi la ñuy ñëw di daan suñu doole kon nañu dimbal defaral ñu marché bi dañu salta bi ak ndox mi sonn nañ ci ndox mi ak salte bi te njaay mi seer na nañ ko wàññi. mais xuus bu ñuy xuus di ko jaay si kaani gi salte boobu jigéen ñi di ko lekk moo jaaduwul kaani gi des fois da ngay ñëw fekk muy tëmb si biir ndox mi ñëpp di ko gis loolu xam nga ne jaaduwul te maire baa ngi fii ñëpp a ngi nii mën nañu dégg jaaree dara jagut fi dara fi baaxut ñu ngi fay jur di fay ba dante caaro li ko yàq yi ñoo ko yàq ñoo amul fu la amuñu fayda moo tax caaro kenn mënu koo defar commerçant yi ñoo amul fu la amuñu a jag lu ñu amee xaalis ñu lijjanti lijjanti wuñu marché bi ñu def ko ay canal bu tawee ndox mi jàll il faut ñu def ko ay canal bu tawee jàll ah mais il ñu def nga xam ne bu tawee day ndox ah a tabaski di fini seen a dem il faut laaj dama tabaski xam nga loolu daa métti